dal leen ak jàmm mel na ni jàmm jeex na diggante nguur gee ku jéeg bi bu ñu sukkandiko ci Ousmane Sonko njiital Pastef mi xam le ne li xewoon ajjuma ji ñu weesu du woon dara ne pare nañu ngir yégluwaat maanaam ñaxtuwaat maanaam soobuwaat ci seen ñaareelu plan d'action waaye wi askan wi ne daañu wàcc ci mbedd mi ñaar fukk fan juróom-ñeent ci weeru juin gi ñu ne waaye la koy jiitu ci Walf Quotidien Ousmane Sonko woo na askan wi ne àllarba ji ñu jëm fu 20 heures jàpp 20 heures 10 ne bu ne na jël sa casserole wala boog benn ndab taxaw ci sa terrasse wala sa balcon wala sa buntu kër dal di ko door ngir xamal njiit réew mi Macky Sall ne àndoo ci doxalinam yéene cabinet bu dee dawalkatu woto ci waxtu googule Ousmane Sonko sas na leen ngir ñu collectionné bañ a bàyyi njiital Pastef ne bile message message gënu ko fort te kenn mënu koo tere yéene cabinet sursaane ca université Cheikh Anta Diop étudiant ya ca campus social ba soobu nañu xaat ci seen kasorol ña ngay fab plate yaak cin ya bool yaak kuddu ya tàmbale di tëgg ngir wone seen naqar ci réew mi amal seen concertu kasorol ngir wone seen naqar ci réew mi yéene cabinet l'info ne waa yeewi askan we ngoog ña ngay soobu ci fippu Ousmane Sonko ne ñaar ñeent ci weeru juin gi ñu ne neex naqari waa yeewi askan wi daañu wàcc ci mbedd mi ne ñaar donga ci mun a am njiitu réew Macky Sall dina ko jàpp dugal ko kaso wala boog mu faagagal ko Barthélemy Dias daal di fàttali ne ba léegi deret gu bëree bari mu ngi tuuru ci mbim réew ne dafa doy Khalifa Sall gis ne nguruk Macky Sall mile nguruk fitna la jot na mettitlu li xew ci Sénégal te daawutoon a am te du kenn ku dul njiitu réew mi Macky Sall Khalifa Sall ay wax ci biir yéene kaabidi la témoin xalif général des Tidiane di Serigne Babacar Sy Mansour wax na wax na ak langu bi moo xam ñi féete ci ku jég politique bi wala ci nguur gi ne waxtu wa jot na ñoom ñëpp ñu toog waxtaan diisoo ngir jàmm ne ñooy xalif général des Tidianes xamle ne way politique yi nañ di jiital waxtaan Birame Seck bu Forum Civil ñaawlu tegum loxo Mame Diarra Fam Déthié Fall ak Ahmed Aïdara alerte quotidien mel ni Ousmane Sonko mile kenn mënatu ko téye dem ba jeex la woote ne pare na ngir jàmmarlook nguuruk Macky Sall ne lu mu ci am jël rawatina bécciku ñaar fukk ak juróom-ñeent ne daañu wàccaat ci mbedd mi ne su booba ñaar donga ci mun a am daañ ko jël yóbbu kaso wala boog faagaagal ko ay kàddoom ci alerte quotidien docteur yeewi askan wi jot ci yi maanaam ca ONU Habib Sy ay kàddoom ci alerte quotidien xam le ne na ñu tas tasar lii di conseil constitutionnel ndax nañu doxalee awul ci yoon jëmee ci seen liste yéene kaabi di la mandaane lu jëm ci tegum loxo ñenn ci ay kàngam yu coalition yeewi askan wi tax na yeewi askan wi fippu na soobu na ci beneen plan d'action réew mi quotidien ne seen yéene bokk na ci ñu fexe ba teggi loxo ñañu jot a teg loxo ku mel ni Ahmed Aidara Déthié Fall ak Mame Diarra Fam génn cabinet ñoom ñetti ñi le ña nga de dépôt dañ leen àtte ci biir semaine bi génn cabinet bu dee Guy Marius Sagna retour de parquet la am génn cabinet Le Quotidien xam le ne Askan Wi tegewul tànkam fam ko tegoon dina dàbbaliwaat ay ñaxtoom dina wàccaat ci mbedd mi dañu amal yëngu-yëngal Ousmane Sonko ne na fépp yëngu ci concertu casserole sas na askan wi ak lu waaye am ci ndab fexe ba mun koo tëgg ngir wone sa naqar ci li ci nguuruk Macky Sall ci biir yéen cabinet critique a le ne dañ ko amal ñii groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ci biir yéene bi jot nañoo ñaawlu doxalinu seen naataango député di Ousmane Sonko ñaawlu itamit doxalinu waa coalition Askan Wi ne nañu dakkal fitna gi ñu nekkee ci géew bi ay kàddoom ci Sud Quotidien Ousmane Sonko xamal njiitu réew ne bi yoon dañu ñaxtu fépp te kenn du leen mun a téye rawatina moom mile kenn du ko toogloo këram ne dina wàcc ci mbedd mi ñaxtu ne conseil spécial bu njiitu mi Macky Sall ma ngay dànkaafu Ousmane Sonko ne Sonko mile am na lu ko doy ne am na ay ba noppi na ko a jublu ci concertu casserole maanaam na a wax yéena ne Ousmane Sonko ak pexe yu mu am ci wàllu politique mel na ni ko tàmbalee gëlëmloo njiitu mi Macky Sall bépp pexe bu nguur gi lal Ousmane Sonko faxas na jàll yéena ñu fàttali ne waxtu wii le bu mosaan a jot maanaam saay bu ñu doon waajal élection njiitu réew dina wër réew mi amal tournée économique waaye bi la yoon tàllu ko ndax Ousmane Sonko yéene cabinet yàggul dara jigéen waa Yewwi Askan Wi tàccoo nañu njiit réew mi Macky ñetti yoon bi la yoon Ousmane Sonko ne loolee doyut nañu fab suñu kasorol moo xam bool palaat dal di ko teg ngir tànqal njiit réew mi Macky Sall waaye itamit ne daan ci wone seen ñàkk ànd ci ni njiit réew Macky Sall yore réew mi yéene cabinet la Soleil xëy dellu ci fitna yi fi woon keroog ci ajuma ji ñu weesu juróon faatub la enquête ba wone rawatina autopsie ba moomule lu demee ni jaasi juróon faatub ndem si yàlla Idrissa Goudiaby te yooyu le ngànnaay police ak gendarmerie du ko jëfandikoo yéene kaabi di l'observateur ne ci yooyu le ñaxtu amoon na ci ay defkatu ñaawteef lañ ca jublu mooy yee fitna ci ndakaaru taal jéppét ndakaaru rawatina dem songi centrale électrique bu Cap des ak bépp moomelu waa France fii ci Sénégal ba ci yenn ci këru kilifa yi yéene kaabi ne am ñuñ ca jot a teg loxo te ñooñee bu mouvement ñoo xamante ne seen yéene bokkoon na ci yee fit ci capital bi jafal capital bi tuur deret yéene cabinet ñoo am ñu leen ngemb di leen financé lu ko dalee ca fitna ya ci weeru mars 2021 yéene turbine xëy waxtaan ak soxna Aminata Tall mi fi jiite woon conseil économique et social et environnemental wax na la xam ci réew mi rawatina élection législative ñuy waajal soxna Aminata Tall ne li xew ci réew mi ak jafe-jafe tënk askan wi du kenn leen Aminata Tall ne li élection laaj yëpp gisu ko benn yoon ci yile woote direct news ne Aminata Tall yekk na lu mel ne xeme nguuruk Macky Sall xam le ne dañoo bëgg a salfaañe élection yi ndax nañu doxale ci lissi yi awul ci yoon Aminata Tall ne Sénégal gile ak démocratie bi fi ne sàmm ko jot na waaye duñu bàyyi benn yoon ñu koy salfaañe wala boog di ko màbbal beneen Aminata la ñu fekk ci biir yéene kaa bi di bés bi le jour di Aminata Touré mi sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall ngir mu bañ ji jéegaani di waxi jee feneen ca bitim réew la muy wax na ëppee ci presse bu Sénégal maanaam ci presse nationale bi càkkuteefu Aminata Touré ci njiitu réew mi Macky Sall yéene kaa bi di Le Quotidien ca département bu Pikine tabbaat nañ ko mu doonaat maire maire bu département bu Pikine moom Isaaxa Diop maire bu Pikine Est gannaaw jéego yam fa def ak lam fa jot a liggéey ba faluwaat ci bopp commune bu Pikine Est ci biir yéene kaa bi di Le Quotidien ñi gérer station de service yi bi ña ngay fàttali ne ci fitna yawoon ci weeru mars gi weesu lañ ca jot a yàqule lim bu tàkku la ci ay milliards te ba tey nguur gi mënagu ko remboursé keroog yàggul dara jot nañ cee yàqule fale ca station bu Colobane am ñu leen fa song yàq station gafane yéene bi ne tey yooyu les yu station de service newatuñ ci kaarange ña ngay yuuxu wallu ña ngay sàkku ci nguur gi mu leen di taxawu saay bu yëngu-yëngu amee yéena kaabi di libération ne kawteef tàmbale naa am jëm ci tuut tànk yi ndax am na ci ñaari xale ya ñu jot a sàcc yéena kaabi ne kenn ka ña ngi ko sàccee ca Rufisque mu ngi toll ci ñeenti at ab waxambaane gu sant mbeng moo ko fekk fa mu taxaw mu yóbbu ko tàmbale ko fitnaal benoone muy feeñ bu dee ca Pikine ab xale lañ fa sàcc gu toll ci benn at ak teg ab jigéen moo ko fekk ca kër gamu ne dal di ko tàllal loxo yóbbu enquête ci jamono joo xamante ne waajur yi jaaxle nañu jommi nañu jommeet